taamala yoonu gàddaay kii di Fatou Fall num def ba mucc ci gàllankoor yoon bu raglu xaaxaan xiif rëccute ak nammel ci réewam. soo nekkee si biir gaal bi li nga yëg ay métit parce que ñun si biir gaal bi la ñoo nekk dëgg la gaal bi di fa feebar man maa ngi nii pause day bi dama feebar full day lekkuma. bi muy dem kay moom fil naa ko de ma xam ne xëj na dafa bugg a tekki moo tax parce que Europe moom soo gisee ñëpp di fa dem pour tekki moo tax. ni ma toogee noonu su ma maa ngee neer gaal soo si nekkee sa yaa ngi dem si joni bu sori foog nga nekk di neer. surprise naa parce que moom dafa nekk nit koo xam ne nit yu ruskat la te ñemewut tamit moo tax man tam bu ma déggee comme dafa dem si yoon bi dëgg-dëgg surprise naa tamit suma xel bi tamit toogutoon bu ma yëgee ne comme gaal bi dem na te si yooni ndox lay nekk di dem. maa nekk maa ngi wuccu soona naa si gaal bi foos de moom dama over soona dama soona. dafa fële faat faal. ma dajee moom si tandiku la ma wax faafale ut fii ma ne ko fu ngay dem foofu léegi lay dem ut dimbale suma yaay. xanaa guddi bi daf dee métti moom trop suñu jigéen ñi. easy wul toon moom easy wul because eh, man moom man géej naa nelaw depuis démb mu di paatee mu dem. biñ génnee baara di dem ñu ngi am Mauritanie Mauritanie foofu la dem after yi ñu gis ne comme am na gaal bu am accident soo óorut pour ñu war ñoo bàyyi ñun tam ñu continuer. noonu la ñu gars yi téye. woon na nag métti woon na torop xalaatoon naa ko parce que loolu mos nit soo juree sa doom nga yar ko di nga xam ban façon ngi jikko ban façon nit la. dajale neen xaalis foofu def neen li ñoo suñ mobile yëpp leen dajale pour jox ko gars yi rek ndax ñu mun ñoo bàyyi ñun ñu continué. xeexuñ xuloowuñ saaguñ leen dañ fa nekkoon rek man moom jooyu ma defuma dara. waaye am na si ñoo xam ne ñu ngi nekkoon di jooy. lijjanti ko ci épisode bii di Tambala si sirisu gàddaay yuñ leen di indil koleel sa bët si sa tele seetaanal ma faatu Fall mu nettali ñu jaar jaaram dinañ leen ko indil fii si GTTV samedi. fukk ñenent ci weeri novembre. 2020 fàttalekul ne Babylone mu ngi fii si Jolof waaye nag ci bokk gome Tambala yoonu gàddaay.